woo ma ak yow sax man maa gën a gis sa affaire man maa gën a gis say ma faalewul. man maa la faalewul. au nom de quoi. ok booy wax ak man da ngay wax ak man tànk. wax waxuma naan. sa ton. quand même baissé wu ma le ton. mais oh ngay waxee ak man. je parle comme je man lii laay waxati quoi man je suis dama sonn. maa la gën a maar. ok d' sa papa fii la ma woo amul lu ma yàqul. man pour man lu nekk la may doyee pour man sax danaan ma ñëwal ñaan si ah mu may traité de yambar naan ma bàyyil sama doom ah sama doom du sa nawle du sa lii du sa laa mais si papa amul xam nga la la man awa je man dama sonn quoi. dama lay posé rek benn question yow sama papa ngay génnal wala man nan laay génneeg sa papa mais tamit nan laay génneeg koo xamante ne ay waajuram d'accord suñu relation moom loolu moom la engagé doo bàyyi man ko sama bopp. parce que ëllëg tey jii su may ñaan seen kër laa ñëw te sa papa laa fay fekk damay bañ ëllëg samay mbokk ma yónni la ñoon ñu toroxal ma c'est pas li mu teg ci bakkan bi xam nga lan la mooy affaire chef affaire euh, nguur affaire puukare te loolu noonu moo amatul te lépp lu nekk ci baay lépp lu nekk ci baay mi ngi ci doom bu jigéen bi. Ah. ah mais bien sûr. waaw allo Malick <laughs> waaw na nga def yaa ngi ci jàmm waaw Malick nag damaa bëgg nga wax ak waa garage ñoom ñëpp xam nga quartier bi nu mu demee dégg nga te gëy dafa bëri problème. bu faloo ci quartier bi xale yi jigéen ñi dinañ am problème yéen góor ñi di ngeen am problème parce que day wax ay tëdd heure ay ay ay wàcc ay liggéey heure ay sabar du fi am tànn biir du fi am ay lii du fi am te yooyu yëpp day saboote quartier dégg nga yow nag comme garage yaa fa yow yaay patron bi yow Malick Lax la yow yaay kilifa gi damaa bëgg nga gérer gars yi ne leen ñoom ñëpp nañu wooteel Diouf noo bàyyi yooyu nag yooyu jóge na fi xuloo garaaw xuloo mënut a ñàkk danoo jote woon loolu affaire bu ndaw la woon rek jeex na jeex na juboo naa ak moom moom même bu mu xuloo moom it baax na ci quartier bi moom li mu def ci quartier bi kan moo ko fi def Diouf moo fi dugal ay lamp yoo xam ne boo rombee rek mu tàkk kenn da koo def ci quartier bii Thiès ban quartier la am waaye yow waa garage bi daal gérer leen loolu na def waaw waa garage bi yëpp maa ngi nii ah ci yow de doom say at méngoowul ak sama gaynde googu loolu luñ leen nittali lay doon mais sama gaynde moo fekkee woo ko. dëgg papa nag man yàgg naa ñëw sa simb sa ñu may foog. sama ah. papa tamit di ma nettali ci sa ah. simb yi. yow kenn ma sa yaay. sama yaay. Ah. yaay faatu. kuy sa papa kii. Ibra. Ibra Naajo. yee wax dëgg. loolu sa papa la ko nettali. waaw sama papa sa papa ak a ñax ragaloon gaynde <laughs> sa papa laa jàppoon mu saw. eh papa nag loolu yàgg na te fekkeewu ma ko bàyyi li ngay def nag. non dama ah. lay wax rek xam nga simb moom simb la rek. déedéet bàyyi ngay wax nag maa ngi nii. ana sa yaay. mu ngi kër ga. waaye yow xanaa nekkoo fi woon dama laa gëj a gis. waaw waaw damaa defoon benn voyage bu ndaw nag damaa voyage woon fan yii mais ñëwaat naa ah. parce que xam ma dañoo ne ci campagne te damaa génnoon am stage yu ma doon def doon ànd ak ay tubaab xam nga fan yi yëpp ci yooyu laa newoon ah. léegi nag bi ma demee ba xam ne quartier bi fi mu toll dañoo commencé waat pour pour pour voter ko di xool kan moo fi toog ci la replier ñëw léegi nag man moom wax dëgg yàlla ci juuf laa far parce que man Diouf moom mooy sama nit juuf moo ma wan ay ay ay jikko yoo xam ne doy na ma ci quartier waaw. parce que man non non non dafa defal man ngay waxal de. man déception laay bañ. man ngay waxal ma lépp lu nekk si bàyyi mu ngi jigéen man ngay traversé nii yow waxagoo sa soxla sa soxla waxagoo ko. waaw xam nga la man je suis fatigué dama sonn maa gën a sonn laa la wax Ibou. xam nga nu ñuy def man dama sonn ci daw beeg laaxatu beeg tey nga ñëw suba su ma ñëwee seen kër fii ñuy laaxatu fu nekk ñu dugg fa koñ bi instant bi amatu amatuma fi réputation bu baax. léegi xam la laa bëgg mais sa gëm yow mii di góor nag. waaw yow la sa réputation yàqu asama ah, man. mii jigéen tu sais ce qu'on va faire da dem nga toog seen kër man ma toog suñu biir kër. ku ci nekk réfléchir quoi ñu xool nan la ñuy def ñu mettre en pause relation bi quoi je loolu moo gën quoi vraiment mais loolu laa gis comme solution quoi parce que ay xuloo dama ci sonn. yow man ngay waxal naan ma dama bëgg nga toog seen kër ñu stand by relation man ngay waxal Ibou. mais nañ ko mettre en pause quoi moo gën quoi ku nekk nekk ci jàmmam voilà man loolu laa gis. loolu nga gis yaa ko teree neex. ati ah, yaa ko teree neex boo yaakaaree ne damay topp sa ginnaaw di daw yaa ngi nax sa bopp man daw ma sa ginnaaw benn góor na nga fexe nag ba sama buntu kër bu fa teg sa tànk yaa fi gën a ñàkk jom. sama numéro mën nga ko bloqué dégg nga ah. yow laa lépp nañ ko mettre en pause xale jigéen yow buggulu yombu yomb boo dawee di topp seen comme takkandeer rek boo dawee di topp seen ginnaaw doo leen a jot mais gis nga boo ba leen wanee ginnaaw ñu topp la c'est ça. Guèye nag. Mhm. amul may expliquer moom. yaa ngi may dégg. moom dafa bëri histoire. te jabaram mooy loolu dafa soxor. quartier boo ko yor dañ ci ànd ak laa biir ak yërmande mhm. léegi nag ma bëggoon comme yow ma gis ne yow bu dee Ibra Naajo mooy sa papa. kon yow war nga am dugg-dugg war nga am génn-génn léegi nag ma bëggoon yow nga mobiliser xale yi sa morom yi ànd ak yow mhm. ngeen ñëw jàppale seen baay Diouf mhm. Diouf ku baax la te et puis Diouf miin na quartier bi mhm. Diouf xamante na comme par exemple yow sa papa euh, teraanga gi mu séqoon ak moom ak man li mu séq ak man kon kooku mën naa yor quartier bi ay waaye ñëw leen ñu jàppale Diouf lii rek mooy sama problème waaye papa danga ngaa wax lu neex xam nga sama sunu moo ko dàq. non sunu sunu. sama moo ko dàq loolu mooy bëgg a wax kon waxi olof. waaw waxi olof voilà yow gis nga ni nga mel jantal loolu. war mën a téye quartier bi poñe ko. yow Diouf mi ngay wax. moo ëpp histoire euh, kii. mais da koy teg fuuf téeméeri junni yoon da koy teg ci at non non yow papa yow da nga fay gëj ñun li ñu subir fii ñun nag yàlla rek ñoo ko xam. mais kon da ngeen a weere nag mais Diouf moom boo déggoonul moom du la wax dara moom. yow. léegi man xam nga lan laa bëgg. xam nga man jeune laa. te ñi ma topp ak ñoo bari loolu. dama bëggoon yow nga déposer candidature ma jàppale la. Eh, man mii waaw. yow man sama casier judiciaire la ko xale yu jigéen yi wax versul de man ay plainte kese la man li ma am ci ay plainte xanaa mat na douze mille plainte man sa damaa verse bay def quartier. papa fii lépp dañ koy lijjanti. mais jànguma ensuite jànguma di. lépp dañ koy lijjanti loolu du problème. ay jàng nga ak casier judiciaire loolu yëpp du problème. man quartier bi wóolu wuñ ma man daal xamul luy problème bi. baal ma topp ci ginnaaw juuf muy doxal lu mu waddal ma for baal ma def noonu da ngay wóolu sa bopp nag wane sa bopp dëggal sa bopp ci koñ bi nga bokk comme ñoom ni ñu bokkee ci koñ bi am nga droit déposé candidature xale yi topp la ndiiraat daa wax nga dëgg de man am naa nit de mbootaay yeeg xam nga ñoom ñëpp man man man samay xarit lañ waaw man nag jeunes yi jeunes yi ku ma wu yëkkati mu jug te man avec day am sama ñëw toog ah, waxtaan ak xale yi jigéen ñi loolu femmes yeeg yëpp xalaatal ci li ma la wax. waa dinaa ci xalaat. xalaat dinaa ci soo paree nga woo ma. waaw indi ma jox la sama numéro. jëlal am tànn biir yeeg yëpp man damay ñëw am na simbukat ak tànn biir ñoo bokk benn kii yooyu yëpp garaawaluma ko. yow léegi soo paree. waaw woo rek. amul problème yow kay na déggoo ah, yow xalaat bi mu jox ni sax dafa neex. waaw <laughs> ay fiis <laughs> non xale bu jigéen bi wax naa erreur nag waruma ko waral sa papa laa jàppoon mu saw. man damaa gaaw làmmiñ xaar maalin mun fat ko waaye bàyyi ma doomu Ibra Naajo rek